moo jiili looy jooy saa xola xëy tooy saa soppe lay jooy Sidi Lamin Ñas moo jiili looy jooy saa xola xëy tooy saa soppe lay jooy Sidi Lamin Ñas jàmbaari lislaam ju sonnal islaam ba xëy ñu nax naam Sidi Lamin Ñas jàmbaaril islaam ju sonnal islaam ba xëy ñu nax naam Sidi Lamin Ñas ak kàggu dem na savant dem na xam-xam de jooy na Sidi Lamine Niass xam-xam bu selloon la yor te nekkoon Sidi Lamine Niass xam-xam bu selloon la yor te nekkoon Sidi Lamine Niass xol baa kalaaboon jëf yaa ka selloon wax kër yëpp a nekkoon këram amul woon ci genn kër noon Sidi benn nekkoon ndalim mi beetoon Sidi Lamine Niass daa formé aw gaay bañ dégg tay baay li man tanaax saay Sidi Lamine Niass daa formé aw gaay bañ dégg tay baay li man tanaax saay Sidi Lamine Niass daa bañ ba dem noteel bu daa am mu deeti nañ am sidil amin ñas daa bañ ba xëy dem noteel bu daa am mu deeti nañ am sidil amin ñas waa mi wooy wooy bu leen mën a allahu yooy Seydi Lamine Niass waa réew mi wooy wooy bu leen wooy allahu yooy yooy Seydi Lamine Niass waa réew mi wooy wooy bu leen wooy allahu yooy yooy Seydi Lamine Niass tuubaak ti waawoon ñeseenu laayin man jaale naa Lamin Ñas tuubaak ti waawoon ñeseenu man jaale naa Lamin Ñas allahumi buur na def ko masruur ci barke Mansuur Sidi Lamin Ñas allahumi buur na def ko masruur ci barke Mansuur Sidi Lamin Ñas allahumi buur na def ko masruur ci barke Mansuur Sidi Lamin Ñas alhamdulillahi